sëriñ bi sant na bu baax ndax euh, am nañ xel mu dal ci bi ñu ñëwee ak soxla yi ñu indiwoole indiwaale gouverneur ak ñi koy jàppale yëpp muy chef de service yi ñu teew ñëpp ak maire Touba sëriñ Abdou Lahad Ka ñëw teew nii yëg na ne kon xel mën naa dal bu baax a baax ni mu daan dale ci la weesu kon mi ngi sant ci loolu bu baax di ñaan suñu boroom àgg lañ ci jàmm waaye ñëpp ñu ci ndam tamit nag njariñ la ndax ki ñi wotel bis bi mom kilifa yi wax nañ ko ku jar wotel bis la sey abdul Khadir mbake radiyallahu anhu kenu la won ci kenu diine rew mi it soxla nañu ñu ko nit ñi ndax rew mi jikko ju rafet mo koy doxal sey abdul Khadir nag jëmmaloon na jikko ju rafet ni ko doomi serigne touba yëpp jëmmalé don ko xam it euh misal la ci ne ni yalla bëgg ab jaam mel manis dana mel rafetalon na diggam ak boromam rafetal diggam ak jami yalla yi ak yi ko sunu borom galon yep matal nako ko ñibi aljana yu mel non na ku ko am bayiko fi njabot gi soxla nañ diko teewalat ci seen kanam ngir ñu mën ci jël ay bind ngir suñu ëlëk mëna a ndax sunu borom kat bi wax nit kana fi qasasihim ibra ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan lahi bayna yaday alquran moñu jangal wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma bi bihi fu'aadak kon dafa mel ni màggal yi ñuy def yépp dëgg-dëgg mooy fàttali nit ñi seen démb ngir ñu am fu teg seen tànk mag ñi fi jaaroon ba am ndam ñoo xam ne buñ xeñtoo seen mboor danañ am ndam sëñ Abdou Khadir Mbacké nag kenn la ci ñooñu ci biir njabootu sëñ Tuubaa gi taxawaay yu rafet yi mu taxaw ci diine euh, nekk gi mu nekkaloon nit koo xam ne ku amal njariñ ñëpp la nit ñëpp it yàlla daf dafal ko xabul ci ñëpp ñepp bëgg ko ndax jikko jimu yaro ak melokaan yaro nak nak japp nañ ni jamono da koy soxlu sa kon bu kilifa yi wote bis diko ci wotel jaaduna ndax njariñul len mo ci nek waye su kilifa yi jëlee matwa yu melni fassiyene bis bi jatt mel ni mu mel lool it sëriñ bi dana ci sant bax bax sant la ci yow gouverneur ak ñi nga àndal ñëpp ñaan suñu borom sambu len dëgëral len waye sant ci baxit nak mairie Touba sey Abdoulaye mi ko wax ne taxawaayu rafet yi ya weesu daa wax dëgg yàlla taxawaayu rafet rafet la woon ren it jëlaat na engagement yoo xam ne am na ci yoo xam ne du warteefam en tant que maire waaye da ko def ni mu ko waxee en tant que loolu sëriñ bi nee mi ngi sant bu baax di ñaan suñu borom sàmm leen dëgër leen itam eh, barke ak ngërëmul sëriñ Tuubaa bi ñu koy séenu yàlla na ko ci yàlla defal sant baax it nag ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi muy comité bi nga xam ne ci ndigalu sëriñ bi la ko taxawale ànd ko ñoom muy ay bokk di ay talibé saa bu wootee ñëpp jóg lépp ñoo koy ànd di ko def sëriñ Abdou Khadre bokk na ci li ko yàlla jagleel ay nit ñoo xam ne ñëpp mën nañoo wax ne kilifa lañ fa nekk ñooy ñëw takk seen i dëgg takk seen i laxasaay ne ci liggéey bi ngir teeru gan yi ak dalal leen loolu bokk na ci li ko suñu borom jagleel moo tax it ñaare fu ñu wootee ñu mel noonu ngeen fay gis loolu jaral suñu borom moo tax sëriñ mi ngi sant ñëpp di ñaan di sant it taskati xabaar yi nga xam ne ñoom itam ah, am nañu rafet yéen a ju rafet lool ci yu mel nii it saa bu jàllee nit ñi jariñoo ko ñoom seen loxo nga ci biir ndax du ñëpp mën a màggal si waaye liñ fay wax la fay jógee ci njariñ mu ñëpp mën nañ cee jot ndax ñoom tax ci xibaar yi kon sëñ baa ngi leen baax di leen ñaanal fàttali mbokk yi ne boobu nag bisu diine la kon képp ku fay ñëw na nga sellal sa yéene rafet njort ci ne it nag boo fa dikkee loo fa ñaan yàlla yàlla mën na ko nangu ndax borom bi subhanahu wa taala kat du may di nangu te mayoon na sëñ bi xadir loo xam ne génnam àdduna du tax mu nangu mooy saa bu ñaan yàlla yàlla nangul lu ko waaye jëfalit am ci ngërëmul yàlla ndax ku yàlla gërëm la ku yàlla gërëm loo laal ci jëfam am ci ngërëm kon kuy ñëw na nga bàyyi wàlla xel loolu xam ne yaa ngi ñëw ci bisub nitu yàlla doomi sëriñ Tuubaa ku liggéeyal yàlla ci njaboot gi liggéeyal ko ci diine ba am ngërëm kon loo laal ci bisum rek mën nga caa jariñ bu faw kon ànd ak yar ak teggin xam ne it dañuy ñëw di màggal si di dundal si sunna ndax sëriñ Abdul Xaadir mooy sunna daana waxal boppam ne baatu sunn ab sunni yu laa man du ma ko bàyyee kenn bañ nga ko ba ci aw dundinam wépp wépp sunn la ci doon dund dundinam wépp boo xam ne saa boo seetloo jëmam te xam dara ci diine boo séenee am nataalam sax xam ne kii nit sunna la woon loolu it sëriñ bi mi ngi koy soññee di fàttali nit ñi xam la ne fàttaliku ku baax mooy fexe ba jël ci ay bind ku ñëw kon dégg waxtaan nañ fay def ci sëriñ Abdou Khadir fexeel ba boo fi jógee boo mënta jël yëpp it jël ci yenn yóbbuloo ko bu ëllëgee nga dolli bu yàggee kenn dootu la gën sëñ maa ngi sant ñëpp di ñaanu jàmm ñu àgg ca jàmm euh, di siyaare kilifa yëpp lii lépp nag mu ngi koy def ci ndigalul sëriñ Sidi Muxtaar sëriñ Mouhamed Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy xalifatul muridin di ñaan sunu borom yàggal ko fi saxal ko naal yi mu naalal sëriñ Touba naalal ko lislaam yàlla àggale ko ñëpp ñu ànd ko moom mi ngi sant bu baax daal di ñaanal ñëpp di wax ñëpp ne ñu ngi leen di woo ci màggal gi di leen séenu di ñaan ñëpp ñëw jàmm fekk ci jàmm dundal ko ci jàmm dellusiwaat ci jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Au nom de Sérin Cheikh euh, Mbake, Khalif de la famille de Seigneur Khadr, au nom de Sérin Sidi Mbake ici présent, président du comité d'organisation, et au nom de l'ensemble des membres du comité d'organisation, euh, nous remercions Monsieur le gouverneur pour la tenue de, de ce CRD et de la volonté affichée par l'ensemble des services techniques liés à l'organisation d'une parfaite euh, résolution au Magal de Srim Khadir Mbake. C'est vrai que nous avons posé beaucoup doléances, mais nous avons senti quand même le gouverneur et l'ensemble de ses services ont montré disposition pour quand même satisfaire l'ensemble de nos doléances. À ces nous assurons le monsieur le maire de la commune de Touba, ici présent, M. Abdelhadka, et l'ensemble de la presse. Nous vous rappelons aussi que l'événement se tiendra, inshallah le jeudi 13 euh, septembre 2018 à Touba et que le mardi, aura la conférence des petits-fils à 17h et que la cérémonie officielle est prévue le vendredi 14 euh, et l'heure vous sera communiquée, inshallah après la tenue euh, de, la réunion d'évaluation. Nous remercions et prions pour, le Khalif général de Mourissé Mbake, que Dieu lui perde longue vie et santé. Prions et remercions aussi l'ensemble de la presse et l'ensemble de ceux qui ont participé ici à la CRD.

wax sëñ Cheikh mu jottali ñu sëñ nuyoo sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides dinañ ñaanal ñoom ñëpp yàlla nañ fi yàgg te wér. di am mbégte ni ñu koy defee at yëpp ànd ak yéen si CRD bi di am mbégte également si CRD bi ni mu déroulé woo demande yi ngeen indi ni mu leeree leen wax ne dinañ si góorgóorlu def seen kënt lay kàttan pour mun ko satisfaire ñu si kilifa yi ni ñu ko bëggee. mais également pour mën si am ah, ngërëmu sëñ Touba payor ba ñu yaakaar si am kuy liggéeyal sëñ Touba ñu mën ko am ah, dégg nañ seen wax si wàllu sécurité félicitations yi ngeen def pour liggéey bi ñu def daaw mhm. dinañ def tout pour que bu déwénee également ñu mérité même félicitation yi maanaam lu ñu liggéeyoon ren dinañ ko yokk pour mun a rattraper effectivement ah, li xam ne noonu la màggal gi di yokkoo waaw ni ko commissaire waxee dinañ déployer nii nit ndam si li mu bañ toll war a toll ay barrières saa ngeen demandé ni mu ko waxee danañ ko romb sax xëy na pour mën a am lépp loo xam ne organisation bi gën ci organisation yi xanaa am na collaboration tamit bu war a am diggante ñuy organiser ak euh, ñi xam ne ñu assurer sécurité collaboration boobu tam dinañ ko taxawal incha allah dinañ ko teel a déployer tamit depuis conférence petit yi ba keroog ba cérémonie officielle bi di jeex sécurité bi mun a mat si wàllu woowu si wàllu électricité tamit euh, dégg nañ li ngeen wax je pense que ni mu ko waxee groupe électrogène bi moom dina def demande bi léegi mu ñëw euh, mënul ñàkk groupe électricité la euh, mënul ñàkk branchement yi tamit noonu ñu ko waxee dina wàññi bi wàcce benn si si tente bi voilà cérémonie bi li si des muy fukk yi ngeen demandé benn neuf fi des ngeen seet ak ñoom ni ngeen ko mën a defee. Hmm? wala ñu xam ne dañu war a fay. Hmm. waaw poto yi xam ne daanu nañu baax daal tamit nu mu ko waxee dañ ko remplacer. Hmm. jël na numéro téléphone bi yaakaar naa ne bu jotee dina ko ànd ak ñu ko ñu coordonné bu baax. ba xam xam ne poto daanu na fa ñu mun leen ko wan su fekkee ne ñoom gisuñ ko woon. mu des seen collaboration ak mairie pour li ñuy wax éclairage public bi ñu jàppandoo ko àndandoo si liggéey voilà kii indi lim am kële indi lim am ñu boole ko ñu liggéey

moom 70 litres produit la ñu demandé woon 250 litres gasoil mairie bi joxe na 50 litres produit ak 200 euh, litres gasoil parce que ñu jàpp ko noonu jéemoon ma jéem ko def pour liggéey bi mat ko matee bi ñu jëloon daaw nag ba mënuñ pare oto yi logistique moom boo ko amee tamit léeg-léeg aller vers l'autorité administrative am na ay instant yoo xam ne peut être moom mun na am ay solution yoo xam ne amu leen ko mun na remonter bu nekkee fii Diourbel la ñu war a poussé oto maire bi ñu ngi xaar donc vidange yi cinquante voyages yi. Mm-hmm. ñu ngi koy xaar incha allah wàllu sable bi tamit suuf si tamit pour rembler maire nee na jëlal na ko ba sëñ Abdoulaye Kharka jëlal na ko boppam. Mm-hmm. Ah, <laughs> jël na ko en charge ah. <laughs> voilà d'accord en tant que Abdoulaye Kharka donc ñu ngi ko siy félicité bu baax. Mm-hmm. Euh, moto pompe yi tamit ni ñu ko waxee rek dèjà am na moto pompe bu nekk moom croisement bi kër sëñ Bass am na moto pompe fa nekk am na sax ay tuyaux yu ñu def pour mën ko verser si regard yi.

donc yaakaar naa ne bu ko maaw complété muy deux citernes ak quatre bâches parce que dina ndox mi kii léegi nag mu reste nag problème bu Bagdad bi xam ne vraiment war nañ si jublu trouver solution boo xam ne dina def màggal gii mais de trouver solution boo xam ne su màggal gu mag gi ñëwee problème ndox du am je pense que phrase boobu ngeen dugal ko si réseau bi c'est bon baax na mais également commencé xoolaat déjà réseau bi si boppam ah su fekkee ne dafa sous-dimensionné ñu yokkaat ko bu mu toll par rapport ak dayuwaayu dëkk bi su wàllu tant yi ngeen wax 60 euh, tente yi incha allah dinañ si jokkoo ministère de l' intérieur ni ñu ko waxee tamit mu teel a ñëw balaa conférence bi fii si def tout pour que vraiment le 10 le 9 wala le 10 mu fekk ko fi incha allah bu ñu si paree dinañ si jokkoo waa ministère. waa eaux et ni ñu ko waxee rek je que autorisation yi tamit mën na bañ a tardé euh, vu que maam Thierno Dieng xëy na sax moom mooy représenté état bi jour bi mm-hmm. ah euh, su fay ñëw dina bëgg tamit indi loo xam ne moom service kenn ko reproché. Mm-hmm. voilà donc je pense que Magali jàll yëpp vraiment gaaw diligenté na ko. Mm-hmm. diligenté na ko wàllu commerce ak élevage tamit noonu la dinañ def contrôle bi war si daara yi. Mm-hmm. mais surtout dinañ weye vraiment que prix yi ñu wax surtout wàllu commerce. ñu respecté ko mais également que approvisionnement bi mën a régulier. ñu wax si wàllu pomme de terre yooyu problème bu am la effectivement temps yi ñu def tout pour bañ ko sentir si jamonoy màggal bi. waa douane tamit euh, ni ñu ko defee woon rek dinañ ñëw jokkoo ak ñoom ni ñu ko defee woon rek ñu allégé contrôle yi ñu mm-hmm. ngeen ko waxee ci taalibe bi xam ne dafa jël ay mbir di ko indi mm-hmm. soit yi muy jëfandikoo moom la wala yi mu indi sëriñ bi mm-hmm. jëm si màggal gi rek parce que jarul jàpp day jàpp commerçant bu si bëgg a dugg nag xëy na dañ ko jàpp mais ki xam ne taalibe la moom ñëw rek pour indi ko indi sëriñ bi jarul jàpp je pense que douane dinañ def comme ni ñu defoon daaw. joxaat leen numéro boo xam ne bu ngeen ko ootee. dinañ ko mën a dinañ ko mën a jàppandi waaw. muy waa Sonatel donc trois lignes internet yi je pense que wax nañ ko dinañ ko mën a joxe. incha allah waaw kon ñu jàpp daal loolu la. donc j'espère que fii ak le 10 septembre. lépp lu ñu war a liggéey dina dina yeex wala mu avancé trop ah. voilà boo xam ne bu ñu defee réunion d'évaluation bi bu nekkul 100 pour cent tamit dootuñu ko sori incha allah. je vous remercie tous et je voudrais rendre hommage encore une fois à Sirin Sidi. lui lui demandé de transmettre ses salutations à son aîné, son Cheikh Abdou au Khalif général des Mourides, Hamadou Mountakha Mbaké. En priant pour eux, que le donne, donne santé, Dieu leur donne santé et longue vie. Euh, donc nous avons entendu les doléances donc, du comité, les demandes du comité en termes de sécurité. Euh, les félicitations d'abord pour le travail accompli l'année dernière, les dispositions prises. Je pense que nous allons conduire, les mêmes dispositifs, sinon en l'augmentant, pour qu'on ait effectivement le même niveau de satisfaction après euh, le magal de cette année. Euh, donc pour les hommes, pour les barrières, euh, pour la couverture de la conférence des petits-fils et jusqu'à la cérémonie officielle, le commissaire prendra les dispositions nécessaires pour, vous accompagner. L'agent ne ne va faire les facilités habituelles. Nous nag dañu am dëj tey quoi comment brigade bi nekk fii si Diourbel ngeen ngeen ñaanal voilà mais y a y a pas de difficulté dinañ jël ils prendront les dispositions nécessaires comme à l'accoutumée pour faciliter donc le trafic sur veiller à dans les zones les de compétence donc à la euh, à l'ordre et à la sécurité Donc les sapeurs-pompiers également prendront les dispositions habituelles, donc euh, Et par rapport à la lutte contre les inondations également, ils déploieront un dispositif particulier donc, pour euh, pouvoir assurer l'assainissement des zones donc, euh, où se déroule le Magal, mais assurer certainement l'évacuation des eaux dans l'ensemble de la ville. Et par rapport à la cérémonie proprement ou aux manifestations du Magal, ils prendront également les dispositions habituelles pour la prévention, mais également pour le secours aux personnes, à leurs biens. pour la Sénélec, on retiendra donc les 10 branchements provisoires, le, groupe électrogène, donc le remplacement des poteaux à Bagdad, et également l'appui à la mairie donc, pour monter les ampoules donc, dans le réseau d'éclairage public. Euh, pour l'hygiène, donc, on a 150 domiciles à traiter. Euh, je pense que la mairie va produire, fournir donc, euh, le produit et le carburant. Et le service d'hygiène va faire donc, le travail. Mais prendre donc, le temps nécessaire pour pouvoir accomplir correctement ce travail-là, avant qu'on arrive au, jour du Magal. Et même à quelques jours avant le Magal. Je pense que l'assainissement, euh, l'hygiène, c'est des choses à produire avant, avant que les, les pèlerins arrivent. Hein. Vraiment, avant que ceux qui viennent pour le Magal ne soient donc dans les maisons, il faut désinfecter, il faut nettoyer véritablement et que donc euh, l'étranger qui arrive trouve donc des, lieux assainis, propres et assainis. Donc pour la santé, nous avons bien noté les cinq euh, postes avancés et les quatre ambulances. Je pense que c'est dans nos cordes. Euh, donc je vais voir avec le médecin chef de région et le médecin chef de district comment réaliser cela. pour la mairie, nous retiendrons donc les 150 voyages de vidange, le sable pour le remblai. mais ça, c'est Abdullah Hadkar qui a à le faire, Inch'Allah. Donc remplacer les ampoules pour l'éclairage public. je pense que pour l'entretien de l'éclairage public également, tout à l'heure en relation avec la Sénélec, ils vont essayer de voir comment faire cela pour qu'on ait une ville mieux éclairée. Pour l'hydraulique, nous retournons donc la bonne collaboration entre Mao Rahmati et le service régional de l'hydraulique. Donc euh, les cinq citernes seront donc fournies, trois par le service de l'hydraulique et deux par, euh, par pour les 10 bâches également, le service de l'hydraulique va fournir donc 6, euh, bâches euh, euh, et Maorahmati va fournir donc les 4. pour qu'on ait le complément à 10. il y aura toujours donc, le problème de l'alimentation en eau de Bagdad. On espère qu'on aura le raccordement à l'électricité avant le Magal. on espère vraiment. Ça, ça permettra sûrement de régler les problèmes de Bagdad. Mais songez vraiment à redimensionner, à redimensionner donc, le réseau c'est un réseau à la taille, dimension donc de, de Bagdad qui, s'est beaucoup développé. Pour la logistique, donc euh, les 60 tentes demandées, euh, on, va, on saisir le ministère de l'Intérieur. on verra également pour qu'on puisse euh, les amener à temps, avant le 10 septembre en tout cas. Pour les autres forêts également, nous avons, bon espoir que les permis donc, de transport de bois seront, seront, donnés, seront donnés très rapidement. Parce que le service a recueilli donc la demande, ils vont s'en occuper. on espère que le directeur des eaux et forêts, sous instruction du ministre de l'Environnement, va diligenter donc, euh, les, autorisations. Pour le commerce et l'élevage, donc, euh, ils vont veiller donc, à ce qu'il y ait effectivement un bon approvisionnement du marché, mais également qu'il y ait respect des prix, surtout les prix qui sont administrés, mais veiller également à la qualité des denrées, de la viande et des denrées l'élevage va veiller aux abattages. et le service du va également va veiller à ce que les denrées vendues dans le marché soient des denrées euh, euh, qui sont consommables sans danger. La douane va alléger les contrôles. et on va fournir également donc, euh, plus tard donc, le numéro du service des douanes, en cas de besoin, après Nous retournons donc que la elle va donner les trois lignes Internet, l'appui qu'il donnait habituellement on, peut, l'espérer. On va demander, comme on disait tantôt, donc, à tous les médias donc, de, bien couvrir cette manifestation qui est très très importante. Donc, euh, vu la dimension de l'homme, euh, jusqu'à présent, ça se perpétue. Hein. Parce que les, imams hein, à Touba, c'est également la famille de Seigneur Abdouhad. Hein. Le porte-parole, c'est la famille de Seigneur Abdouhad. Donc, Signe une, n'est plus présent, mais ses fils perpétuent donc, dignement son œuvre. Je pense donc que cela mérite donc d'être porté à la connaissance de l'opinion. Comme on disait tantôt, que ça soit donné un exemple donc, à la population, aux jeunes en particulier. Exemple de droiture, exemple donc de, de, de, de piété et que tout le monde puisse donc s'y conformer et qu'on puisse avoir effectivement des comportements meilleurs des Sénégalais et un pays qui sera donc euh, mieux également dans, dans son état. En tout cas, on voudrait redire donc l'engagement que nous avons, donc euh, l'engagement que nous demande le président de la République, euh, le ministre, premier ministre, le ministre de l'Intérieur, donc pour que effectivement ces manifestations-là soient bien organisées. L'engagement que nous avons nous-mêmes en tant que musulmans, en tant que talibés, donc de tout faire effectivement pour que ces manifestations réussissent, pour qu'on ait effectivement les bienfaits attendus par qui ont travaillé pour le Touba Alors, c'est une rek ñu gën saa Ça sàkk nga nga ñaanal ñu ah إنه عليه هو صدق الله